الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد بك جلتي نحن nañu بقنا ne من na سبحانه وتعالى جمباخ جامم mu sant leen ne nañu jëkkal nañu rafetal seeni diggante mu wax leen ne leen ragal leen seen borom te ngeen rafetal seen diggante bañ a def lenn loo xam da koy yàq loolu ci la leen tere itam lépp loo xam ni taxawaay la wala doxalin la boo xam day yàq ay diggante ci la suñu borom subhanahu wa taala waxee yonente bi alayhi salatu salaam ne ko neel sama jaam ñi ñuy wax wax ju gën a rafet wax ju gën a dal bala cheytaane di jëfandikoo seen i wax di ci yàq ak di ci jax-jaxal ci seen diggante ndax moom moom seenub noonu la jëfe loolu nag jóge suñu borom subhanahu wa taala ci sàmm diggante yi ak moytu koo yàq dafay waral ci kenn ku nekk ci ñun mu sàmm ay digganteem ak ay mbokk jullitam ba mu nekk lu mucc nekk lu set ci lépp loo xam ne day yàq diggante booba moytandiku tamit bépp doxalin boo xamante ne dafay yàq booba diggante ndax diggante yooyu mooy fondement bi nga xamante ni ci la mbokkook ci lislaam di taxaw ci diggante yooyu ci relation yooyu mbokkoo gi ñu mbokkoo ci lislaam ci kaw loolu lay taxaw ci kaw loolu lay basé wu bu relation boobu yàqoo rek mbokkook lislaam bi ñu yàlla sant ci quran dootul mën a tey am dootul mën a nekk te borom bi subhaanahu wa taala lim ñu waxoon mooy ñi gëm yàlla nekk ay jullit nangul seen borom subhaanahu wa taala ay mbokk lañ loolu moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñuy fekk lu bari ci ay waxtaanam ak njàngaleem mooy moytandikuloo nit ñi làmmiñ làmmiñ ak wax ndax dafa bokk ci jumtuwaay yi nga xam ne moo gën a mën a indi ak yàqu ci ay diggante loolu moo tax moo ko daan moytandikuloo nit ñi ndax boo seetloo li nga xamante ni mooy jëw ak rambaaj mën nga wax ne ci yi gën a mën a yàq ay diggante la bokk te ci làmmiñ lay jóge ci làmmiñ la ko nit di defee moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu doon wax ne di nekk di jëw ndax xam ngeen lan la naka la lan la nit di def ba ñu wax ne jëw na ñu daal di koy wax ne ko yàlla ak yonentam ñoo xam mu ne jëw sa mbokk julit mooy nga koy tudd ci loo xamante ni neexu ko bu ko déggoon du ko neex kenn ne ko waa bu fekkee li may wax lu am la nag mu ne bu fekkee li ngay wax lu am la jëw nga ko bu fekkente ni li ngay wax amul yaa ngi koy duural di ko sosal loolu mooy bu fekkente ni amul benn cosaan ci lislaam boo xam ni mën nga caa sukkandiku ba wax jooju ngay wax nga wax ko wa illa am na lu war a mën a tax ñu may nit mu wax ci ginnaaw mbokk jullitam waaye mu yem ca fam ca war a yem ndax dañuy wax ne darura la bu boobaa te dañuy wax darura tuqaddaru bi qadriha loo xamante ni dañ la koo may ndax ngant bu boobaa da nga ca yem fa ngant la yem loolu nag lu jafe la nit ñi seenu ñàkk xëy na seetlu ak bàyyi xel li nga xam ne dañ ciy xuus ci li ñuy wax lu bari la leen di jural ci ay bàkkaar ak ay doxalin wala ay taxawaay yoo xamante ne ëllëg rëcc dong lay jur lu nit ki di gën a ñàkk a bàyyi xel ci li muy wax ak li nga xam ne mi ngi ci nuur ak làmmiñam muy gën a jur ci moom ay bàkkaar di gën a jur ci moom tamit gaaw a rëccu wax wala mu def loo xamante ne ëllëg daf koy rëccu yonent ba alayhi salaatu wa salaam doon na wax ne nit dina wax benn kàddu goo xam ne du ci sax bàyyi xel na ca war a bàyyee xel ndakate jural na ko ci merub yàlla lu ko tàbbal ci safara lu sori lool soriwaay bu toll ne penku ak sowu ni ñu soree te kàddu ga ba mu koy wax sax xëy na bàyyiwul xel ci gravité bi dëgg dëgg dëgg dëgg dayoo bi nga xam ne dëgg-dëgg am na ko loolu wane wane na ko nit ki ñàkk a trop conscient ñàkk a trop ci li ngay xuus di ci wax ci sa làmmiñ lu bari la mën a jural nit ki ci ay yàqute ci diineem ak ci àddunaam loolu moo tax képp koo xam ne bëgg na am mucc ci diineem ak ci àddunaam war na di sàmm ak di wattu làmmiñam ba bu mu ci xuus mukk ci loo xamante ne bi concerné wu ko soxalu ko amalu ko njariñ ndax dafa bokk ci rafetuk sa lislaam nga moytandiku lépp loo xamante ne bi sa yoon newu ca mu bokk ci yar bi yonent bi alayhi salaam daan yar jullit ñi ci mbiru làmmiñ mooy daf leen doon wax benn principe mooy képp ku gëm yàlla gëm ne di nga dajeek moom na ngay wax wax ju baax wax ju jekk wala nga noppi wax ju jeex wax ju jekk wax ju baax fal yaqul xayran mooy loo xamante ni war nga koo wax waxe ko na nga ko war a waxe ak fa nga ko war a waxe loolu ci la ñuy wax ne wax ju baax la wax ju jekk la nekkul rek contenu bi contenu bi mun na nekk lu baax mais léeg-léeg waxin ba mun na koo yàq wala nga waxee ko foo xam ne waroo ko faa waxe wala jamono joo xam ne waroo ko faa waxe boobaa loolu tamit daf koy yàq loola moo tax kon yonente bi alayhi salaam ne fal yaqul xayran aw liyasmut ñenn sax dañuy wax ne na wax lu baax te noppi waaye na wax lu baax wala mu noppi bu fekkente ni munta wax lu baax mu noppi benn bis yonente bi alayhi salatu dafa wax muad ibn jabal fekk da koy conseiller di ko xelal waaye bi muy wax ak moom dafa téye ci làmmiñam ba mu gis làmmiñ bi mu ne ko na nga téye lii ci sa bopp muy sa làmmiñ téye lii ci sa bopp muad daal di tiit jaaxle ne ko ndax li ñuy wax dañ ñu koy jàppee yonente bi alayhi salatu wasallam ne ko toskare ñeel na la yow muad ndax am na lu gën a mën a jël nit ñi di leen këpp ci biir safara lu weesu lu raw li nga xam ne seen i làmmiñ moom moo koy fàggu li nga xam ne seen i làmmiñ moom moo leen koy fàggul mooy kon bokk na ci li gën a mën a dugal nit safara gën a mën a waral ci nit mu yelloo mbëgalum yàlla ëllëg li làmmiñam di fàggu fii ci àdduna loolu nag lu raglu la lu yonente bi alayhi salatu wasallam wax muad moo tax benn bis omar ibn alxataab ñëw na fekk abu bakar siddiq jamono yooyu mi ngi nekk xalifatu rasulillah ak li mu def lépp ci lu baax ànd ko yonentu bi alayhi salatu salaam mi ngi tiit ci boppam ba jàpp ci làmmiñam di ko xëcc omar daldi na ko bàyyil li ngay def yàlla na la yàlla njëggalub yàlla nekk ci yow bàyyil sa làmmiñ bi ngay xëcc abu bakar ne ko lii day fu ma dugg rek moo moo moo ma ci dugal lu ma dugg rek sama làmmiñ moo ma ci dugal nga gis ragal gi nga xam ne ragaloon nañ ko seen làmmiñ ak wax yi nga xamante ne daan nañ ko ci wax moo tax dañuy jële ci Omar ibn al-Khattab wax jam daan wax naan ku say wax bëri say njumte dina bëri te nit bu ay njumteem bëree ay bàkkaaram dafay bëri Ali ibn Abi Talib daan na wax naan làmmiñ moom mooy li nga xamante ni mooy tax yaramu nit ki mën a jub moo mën a tax njub nekk ci nit mu ne bu fekkente ni làmmiñu nit ki jub na lu baax ak lu yàlla rek moo cay génn nee na yeneen cër yi ci des yépp dañuy jub waaye nee na saa bu làmmiñ ba dëngee jéngee melul na mbaramel nee na benn cër du mën a nekk ci njub Abdullah ibn Mas'ud doon na waat ci yàlla ne amul lu gën a yelloo ñu tëj ko tëj bu yàgg làmmiñ mu ne làmmiñ mooy loo xam ne moo gën a yey ci ñu tëj ko lu yàgg desu ko bàyyi mu génn yooyu nag di ay teggin yoo xam ni ñu ngi ko jëlee lépp ci njàngalem yonentu bi alayhi salatu wasallam ak ci yaram mu nekk lu ñu aajowoo lool ci suñu fan yi nga xam ne ak suñu bis ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi ciy dund nga xam ne jamono la joo xam ne jamonoy rumeur la rumeur bari trop ci suñu société yi bu ñu waxee rumeur mooy wax yi nga xam ni nit ñi dañ koy tuxal ci seen biir te doo xam dëgg-dëgg cosaan bi fan la mënoo xam la cay dëgg ak la ca dul dëgg source yi pour nga lijjanti ko ba xam ko lu jafe la mu nekk lu des lool rawatina ak réseaux sociaux yi phénomène réseaux sociaux yi da ngay jékki-jékki rek kenn bind benn article wala dara daal di ci wax ay waxam tasaare ko ci biir net bi bu ko defee muy tàmbali di tasaaroo ku ne dugal ci salaam miñ ku ne wax ca legi kon ñun soxla dañ bu baax bàyyi wat xel teggin yooyu nga xam ne mooy teggini yonente bi alayhi salatu wasalaam ci mbiru làmmiñ bu ko defee ñu def képp koo xam ne si ñun bëgg na mucc mu def ne uqbat ibn amir defoon bi mu ak yonente bi alayhi salatu wasalaam ne dama damaa ak moom rek gaawantu jàpp ci loxo bi ne ko yow yonente bi alayhi salatu wasalaam naka la ab julit bu gëm yàlla di def ba mucc lim ko njëkk a wax mooy yow uqbat ibn amir na nga sàmm sa làmmiñ na nga sàmm sa làmmiñ ba xam looy wax ak loo dul wax nga toog sa kër na la sa doy boo amul aajo ak yitte ju la génne toogal sa kër ndax nga mucc te na nga jooy ci say bàkkaar na nga jooy ci say bàkkaar moo yittewul sa mbaaxu bopp tiit ci sa gàttañlu sa digganteeg sa borom jéem a fexe defar loolu waaye lu bëri si ñun tey déedéet fàtte nga say bàkkaar ak sa matadi sa bët yëpp yaa ngi ko jël teg ko ci nit ñi di xool seen matadeg seen gàttañloog seen njuumte ba mën caa dogal sa làmmiñ wax ca loolu yëpp nekk musiba ak fitna boo xam nit ki bu yittewoo loolu nekkul signe boo xam ne bu dal xel la yàlla nañ yàlla sàmm ki nga xamante ni bi dafay daw ngir rëccale diineem ci jamono ji ñu nekk dafa war a sàmm làmmiñam te itam def ko mu nekk jumtuwaay boo xam ne jumtuwaay buy tabax la jumtuwaay buy defar la di yëwanal ba lu mu cay wax rek lu nit ñi lu nit ñi mën a jariñoo lay doon lu am njariñ lay doon loo xamante ni dafay defar di yëwanal waaye du jël làmmiñam mukk def ko mu nekk jumtuwaay boo xamante ni dafay yàq ak di màbb bu ko defee itam mu yittewoo làmmiñam boobu di ci wax lu baax di ci tudd yàlla subhanahu wa taala di ci jàng alquran di bari loolu ci làmmiñam loolu di ko jural di ko jural ay tuyaaba di ko jural tamit njariñ ak yiw bu bari mu daal di jël làmmiñam boobu tàggat ko def ko mu nekk jumtuwaay boo xam ni da ci tasaare yiw waaye di ci soril nit ñi tamit lépp loo xamante ni safaanu yiw la lépp loo xam ne lu baaxul la mu koy soril jaam ñi wala di soril ñoom seen jëmmi bopp loola nga xamante ni daf leen di lor te amalu leen njariñ loolu la yàlla wax ne wa man axsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qaala innani min almuslimin kooka kenn gënu koo yëwan kenn gënu koo rafet ay wax ndax dafay wote di jëmale ci yàlla ba noppi tamit di yittewoo li nga xam ne mooy mbaaxuk boppam yàlla subhanahu wa taala santoon ñu itam ne wa qulu linnaasi xusnan wa aqimu salata wa atu zaka na ngeen wax nit ñi wax joo xam ne wax ju rafet la te ngeen boole kook di taxawal julli di joxe azaka nga gis ne foofu yàlla dafa lëkkale digale wax ju baax mu lëkkale ko ak sant nit ki muy julli ak di def azaka mu mel ne comme ni mu waree ci yow ngay jaamu yàlla di julli ak di woor noonu la waree ci yow tamit nga góorgóorlu bay wax wax ju baax alimam ibnu kathir nee na wax ju baax jooju mooy wax juy digle lu baax di tere lu bon wax joo xam ne wax ju lewet lay doon wax juy jéggale wax juy baale wax joo xamante ni dafay wax lépp lu rafet ak lu baax di ko jëmale ci nit ñi te nee na lu baax loolu mooy lépp loo xamante ne bii lu rafet la ci ay jikko te yàlla subhanahu wa taala gërëm ko koo xamante ni bi da ngaa bëgg am li nga xamante ni moom mooy ak mucc rawatina ci suñu jamono yi nga xamante ni ci lañ nekk di nga góorgóorlu ba fexe foo toll nga sàmm sa làmmiñ rawatina yi nga xamante ni bi nit ñi ñu ngi ciy xuus tey ci ay mbir yoo xamante ni leer na ne lii amul benn tegtal boo xamante ni bi mën nga caa sukkandiku ba xuus sa du la jëral njariñ du la yokk ci sa diine du la yokk ci sa àdduna soo moytul sax daf lay lor rawatina bu fekkente ni wax ja dafa jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy diine bu boobaa nit ki warna bàyyi xel xamne ne mo moo grawati encore ndax di xuus ak sa làmmiñ ci diine di wax te wax ja teguwul ci xam-xam teguwul ci xereñ moy melul nam war mel ndax hikma moy fi'lu ma yanbaghi ala alwajhi alladhi yanbaghi moy def lu jaadu waye defee ko anam bamu wara nekké a bu fekkente ni nit ki sàmmontewul ak mom ci wax ja wax ci diine wax ja lorangé lay daal di mujj nekkat ci kawam te lola yàlla subhanahu wa taala da ko haramal di wax ci diine wax joo xamante ni bi teguwul ci xam-xam ndax bi mu tuddee yi mu xaraamal ci aaya ba daf ko mujjal wa an taqulu ala allahi ma la taalamun wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun yàlla aramal na ci ay mbir yi ci gëna mag moy ngeen di ak yàlla ginaaw bi mu tek ci ngeen di wax ci yàlla lo xamante ni xamoo leen ko moy amooloo leen ko xam-xam amooloo leen ko xam-xam xam-xam buñ ko waxee moy lo xam da nga caa am tektal ak firnde bu leer boo xam ni xam nga ko bu jógee ci yàlla akub yonentam alayhi salatu wasalaam te itam seytaane dafay fiir nit ki ba tàbbal ko ci piège boo xam ne piège bu doy waar la mooy dafay ñëw di waxloo nit ki ci diine loo xam ne tegu ko ci xam-xam jaare ko ci lenn lu nekk ci nit loo xamante ni mooy fiiraange bi nit ki di fiir ci diineem ak xër gi muy xër ci diine xër gi muy xër ci lislaam bëgg a jariñ nit ñi bëgg leen woo ci diine bëgg soril nit ñi lépp lu bon seytaane jaare la foofu ne la yaa ngi toog di xoole nit ñi ñi ngi def lu bon nit ñi ñi ngi nàngam da war a jug wax lu tax jógoo leen daawa léegi ba nag tàmbali di la wax loo ci diine wax joo xam ne teguwul ci xam-xam loolu noonu piège bu garaaw la bu ko defee nit ki jug daal di wax ne moom dafa war di woote ci lislaam dafa war di jàngale dafa war di jubbanti nit ñi fekk ne jotagul ngànnaayoo ci xam-xam lu ko may loolu mu mën koo def na ko war a defee ci anam ba nga xamante ne bi moom moo mucc lu bari xëy na ci masaa'ili diine moom ci boppam xamu ko boo ci toogoon ak moom laaj ko ko du ko mën a mate donte nekkul charte ci nit ki ne jottalil ci lislaam faw nga xam léppi diine waaye am na lu néew loo xamante ne war naa nekk ci nit ki ba buy jottali di wax la muy wax mën a nekk lu leer loo xamante nit dina ca mën a jariñoo ba pare dafa am uute ànd ak loo xamante ni occasion la bu am nit ki wax ceeg nit loola daanaka ku ne mën nga ko ki nga dëkkal ci seen famille say mbokk yi la jege du ñàkk am ay occasion ay waxtaan am nga am loo leen mën a baaxee ci ab aaya wala ab hadith wala loo xam ne déggoon nga ko ci borom xam yi waaye loolu ute na ak nga jël sa bopp jàppee sa bopp ab wootekat juk ne da ngay sol sa dàll di dem ci ay dëkk boo demee ña nga fa fekk lu bari ci seen dina xamuñu ko ñu ngi ci ay mbir yoo xam ne lu bari lu safaanoog lislaam la yow nga dem fa te boo demee sax liñ leen tanee bariwul nga ni da ngay dem woo leen ci lislaam te yooyu buñ la ca laajoon sax soo matul doo am loo leen ca mën a wax lu ñu mën a jàpp loo xam ne lu dëgër lay doon kon bu boobaa loolu li muy tekki mooy am na leneen lu war a jiitu ci nit ki ci xam-xam boo xam ne war na koo ngànnaayoo ba bu jógee bëgg a woon nit ñi mën leen a jox loo xam ni dinañ ci mën a niitoo pour xam ci wan yoon la ñuy jaar léegi bu ko defee nit ki tàmbali di wax soo moytul sax nga dégg ko muy doye dal ay nit yooyu woote ci lislaam ci ne la ñuy def doyul moom li muy def jàpp na ni moom mooy yoon wa dëgg-dëgg ndax ma ngay laxasaayu di génn di dem ci ay dëkk waaye xirte googu ak jubluwaay bu baax boobu doyul ndax xërte ak am jubluwaay bu baax lu baax la ci lislaam bu fekkee nit ki boole na ko xam-xam bu ko may li muy def mu jaarale ko teg ko ci yoon mais bu fekkente ni xër mi ngi fi rek ak bëgg lu baax ak sawar ci woote ci lislaam te nit ki préparé wuñu ko ci xam-xam ba li muy def mu teg ko ci xam-xam li ci ëpp ci réer lay dugg loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala xamal ñu ne cheytaane bokk na ci ay pexem topp ko topp ay jéegoom mooy dalay waxloo ci yàlla loo xamante ni xamuloo ko te loolu ci anam yu bari la koy jaarale ndax nit ki fexe ba di ko waxloo ci yàlla loo xam ne xamu ko omar ibn abdul aziz dafa bindoon waa madina benn lettre ne leen na ngeen xam ne koo xam ne dafa jël diineem teg ko rek pour nekk ci di warante topp masailu diine yi lu ne mu nekk ci di dàggasante kooku dina bari lu muy toxu loolu ak a soppeeku di soppi ay couleur ndax diine du pour werante waaye koo xam ne nga jël sa diine def ko werante kaay daanaka doo sax ci dara mu daal da ciy teg ne leen koo xamante ni itam jëf ci l'islam da day liggéeyal l'islam wala day jëfe l'islam te la muy def tegu ci xam-xam koko la muy yàq moo ëpp la muy defar mu dal da ciy teg ne koo xamante ni dafa jël wax ay waxam natt ko ci ay jëfam ay waxam war naa néew lool lu dul ci loo xam ne lu ko amal njariñ la alxasanul basri doon wax ne koo xam ne dafay jëf te la muy jëf teguwul ci xam-xam mi ngi mel ne ku soobu ci yoon woo xam ne daf kaa rëcc daf kaa moy mu teggi yoon wa dugg ci mbooy mi te yaakaar ne mi ngi ci yoon wi mu daal di wax ne koo xamante ni bi dafay def te def tegu ko ci xam-xam la muy yàq moo ëpp defar mu ne sàkku sakku xam-xam sàkku xam-xam boo xam ni du dox seen diggante ngeen mën di jaamu yàlla waaye góorgóoru leen ci jaamu yàlla tamit jaamu yàlla boo xam ni du dox seen diggante ngeen sàkku xam-xam ndax ñoom ñaar nekkuñu en contradiction ñi yaakaaroon di jaamu yalla moo gën ngay dem ci borom xam-xam yi dafa di sakku xam-xam lol dem ba yobbe len ñu rocc seeni jaasi di xex ak ummatu muhammad alayhi salatu wasalam te lol ñan la ci jul moy al khawarij ba ñu wo walu jaamu yàlla ak bëgg lu baax yaakar ni tëju nek seen biir di ci kër kër yi mo len di agale ci loolu ñu bëgg néewal xam-xam loola ci la len sheytane jaare sank len ñu dal di dem bay yéefaral ummatu rasulillah sallallahu alayhi wa genn seeni jaasi di dok ñi nga xam li nga xamante ne mooy loosu julliti al hasan wax wax ju wax ju kawe la wax ju sori la mu amaat tamit beneen kuréel bu bokkul ak kuréel gi nga xam ne xëy na bëgg na lu baax waaye ñàkk xam ci yoon wu muy jaar am ay jeunes yoo xam ne tey ñu ngi leen di jaarale ci loolu ci ne daawa mooy nga jël say bagage daal di buubu dem ci benn dëkk ci dëkk yi ci àll ba toog fanaan da ngay daawa te daawa boo xamante ni doo jàngale pas-pas doo jàngale jaamu yàlla luñ la wax nga ni day tàqale julit ñu doo ci wax sa yitte mooy woo nit ñi ne leen nañ dem daawa ji ñoom itam ndax yàlla moo wax ne wattaqullaha wa yuallimukumullah bu ngeen ragalee yàlla yàlla xamal leen ci lu dul ngay jaar ci sababu sabab yi war a mën a tax nga xam alors que yàlla bu waxee ne boo defee nangam ma defal la nangam mooy ma tàggatal la sabab yu tax nga am nangam ndax loola yàlla du ko jël jox la ko te jaaroo ci sabab yu tax nga am ko mooy li ñuy wax ne ida arada allahu shayan yassara asbabahu ida arada allahu shayan qayada asbabahu loolu lañ ci nam ñi wax ne abou bakar bi mu tuubee dugg ci lislaam ñëw ci yonente bi alayhi salatu def na ko lan laay def mu ne ko sama liggéey mooy sa liggéey moy ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittabaani da ngay wote comme ni mu wootee mu dem wote dugal ay nit ci l'islam te bobu xamul dara da don soog tup mais bobu l'islam mi ngi soog wàcc bobu ay atay yu ñuy jàng ak xam-xam bu ñu jàng nek gu fi won l'islam mi ngi soog ñëw ci yonent bi alayhi salatu wasalaam li fi nekkon rek mo fi nekkon mu utek tay ji nga xamni xam-xam bi mi ngi fi problème yi bari lol nit ki wara am gis-gis bu leer bu ko may mu meuna jëflante ak li nit ñi di jankontel mën sukkandiku ci xam-xam bobu ba leralal nit ñi seen diine nga ni loolu yëpp amul solo jarul nit ki di ko jàng na jug rek ne day woote yàlla moom moo koy leeralal loolu doxalin la yoo xamante ne du doxalin ahlu sunnati wal jamaa beneen kuréel gi ci des mooy ñi ngay gis tey ci nit ñoo xamante ni ñàkk ragal yàlla ak oyofug diine da yóbbu ci ñuy nekk di wax ci lislaam wax joo xam ne teguwul ci xam-xam nga gis ñu ànd ak dëgër fit lool ci diine ji nekk ci rajo beek ci télé yeeg ci internet bi di wax lu ne ñu koy wax di wax ci dina waxin boo xamante ni boo ko dee dégg seeram bi dafay daw léeg-léeg nit ñi di leen tuddee ay oustaz di di di partager seen i audio di partager seen i vidéo ñooñu noonu li ñuy wax teguwul ci xam-xam bu leer teguwul ci xel xel sax mu rafet te yàq gi ñu yàq ci diine nit ñi kenn xamul nu mu toll ku dul yàlla subhanahu wa taala te ñoom ñooy ñi nga xamante ni boo ko seetloo ñooy dëgërloo fit nit ñi ci diine ndax daanaka lu nit ñi nekk ñoom ñoo cay dugg di ca wax li ci njëkk mooy doyadal gi ñuy doyadal mbirum diine ci nit ñi ndax manque de respect bi ñuy waxee ak façon bi ñuy waxee day tax nit ñi doyadal lépp lu jëm ci diine ak kuy wax ci diine ba respect bi nit ñi waroon am ci ñoom day des beneen bi ci des mooy li ñuy wax nit ñi mooy chaque fois li nit ñi bëgg a dégg ku ci nekk yaa ngi wax pour xool loo xam ne bu ma ko waxee gën a am popularité gën a def buzz ci internet bi nga nekk ca di wax rawatina soxna yi jigéen ñi ndax xam nañu jigéen ñi ñoo gën a gaaw mën a jox nit benn code de popularité bi ñoom la ñuy ciblé beneen bi ci des tamit naaqisaatu aqlin wa diin kon foofa ku fa ku fa ku fa ku fa rëbb li ci ëpp doo sooy ci ñoom ngay gën a amee mbooloo mu bari ndax ñoom boo leen waxee lu leen neex rek ñu daal di lay def seen oustaz commencé di di partager say audio say vidéo di la def ci seeni statut te bu dee loolu mooy sa jubluwaay ci wax ji wax ji ragal yàlla du ko lal ñooñu noonu li ñuy yàq ak doyadi gi ñuy def ci nit ñi kenn xamul nu mu toll ndax ñoom ñooy jéem a justifier nit ñi mel ne kuy layal nit ñi seen gàttañlu gi ñu gàttañlu ci diine ak bàkkaar yi ñuy def sax ñoom ñu leen koy jéem a layal di ci jéem a dalal seen xel di leen wan ne amoo leen lu ngeen di tiit ci li ngeen nekk li ngeen nekk baax na ñi fi nekk naan leen gën leen a góorgóorlu moytu leen lii moytu leen laa ñooñ dañoo taral rek nangam ak sàngam wala dañoo xamul rek loolu lañuy faral di wax nit ñi pour rek bëgg lu neex nit ñi wala sax ñuy yàq pas-pasu nit ñi ci di leen nettali ay nettali yoo xam ni kenn xamul nettali lan la teguwul ci fenn yoo xamante ni day yàq pas-pasu doomu aadama yi ndax day waral nit ñi di am pas-pas ak di gëm ci seen diine yoo xam ni seen fondement wu lislaam day yàqu da ngay toog dégg leen ñuy nettali nettali yoo xam ni boo ko gëstoo ba ci biir xam ne teguwul fenn waaye dañ koy wax wala ñu am ay dégg-dégg ak ay tekkin yu ñuy tekki léeg-léeg yenn aaya yeeg yenn xadis yi ci façon boo xam ne mën na yàq diinay nit ki loolu yépp ñu koy jël di ko tasaaroo moo tax kuréel googu kuréel gu doy waar la suñ jamono ji te itam li ñuy wax boo ko seetloo dëgg-dëgg ragal yàlla lalu ko yeneen motivation moo nekk ci ginnaaw waaye nit ñi ñu ci bëri malheureusement mënuñu ràññatle xeetu nit ñu mel noonu pour moytu leen wala ñenn ñi comme ñooñu ñooy wax lu leen neex ñoom la ñuy déglu yàlla subhanahu wa taala li mu santoon yonent bi alayhi salatu wasalaam te bépp jullit war caa tënku mooy daf ko waxoon ne ko na nga woote jëmale ci sa yoonu borom te teg ko ci xereñ xereñ googu lay tax nit ki mën koo am mooy xam-xam mooy teg say mbir ci yoon teg ko ci xam teg ko ci xel mu rafet